al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziara di teg nuyoo beeg ziar bi ci loxob sëriñ xaadim ak sëriñ xaban ngir ñu jottali ko mbokk yépp mbokk mi nee na dafa am fu ñu nekk baykat yoo xam ne bu ñu ñëwee di doglu ab tool dañuy sartanteeg boroom tool bi ne ko suñu nappe yow lay jox asaka ji amit nee na ñoo xam ne dañuy gumeen si buñ di jàppule eh, borom tool bi ci liggéey bi waaye moom it mu leen di jox ci asaka muy laaj luy attim loolu sarton teeg borom suuf ne ko alma suuf si suma bayee jox la asaka ci li dafa mel ne luyee suuf ci lu cay génne te loolu dañ koy tare suuf kenn du ko luyee loo xam ne ci suuf si lay ñore dañ koy tere benn ñaareel bu asaka it euh, wër ko am muqaabil maanaam dafa nga ma nangam ma joxal asaka ji asaka moom ki ko moom da ko yaayoo ci lu dul mu lay defal dara kon loolu ak fay la daganut ndax asaka wari su ko fayee bi ci desit nit ku la jox suuf nga di ko fayee luy ñor ñore ci suuf sa daganut kon loolu woon dañ ko bàyyi naka noonu kooku nga xam ne dañuy gumen si di liggéey ñu itam bu fekkee ne liggéey bi du ngir yàlla kon dañoo liggéey ngir bëgg ko leen jox dara kon lam leen jox affaire yi ak fay la asaka nag waru su ko fay dëgganul bu fekkoon nag dañ la jàppale ngir yàlla nga fay leen ba noppi gis ne nag yayoo nañ lekk asaka nga jël ci asaka jox leen dara nekku ci naka noonu ki nga xam ne dafa euh, ab luye woon suuf si luye ko xaalis wala leneen loo xam ne du lu ñore ci suuf mu àll ko mu fay ko ba noppi nag gis ne borom suuf si kat yayoo na asaka ndax faqiir la ak wala ci yooyu ñuy wax yi tax ñu sañ lekk lekk asaka mu jox ko ci boobaa dara nekku ci waaye am maa doon sartu moo tax ma jox la suuf si moom dëgganut ma liggéeyal liggéey mooy sartu ma jox la ci asaka yi dëgganut wallahu taala alam mbokk mi laaj ne fe koñ ab koñ bu ñu nekk boo xam ne jàkka dafa nekk ay rajo ne ci am nag ay mbokk yu fay ñëw di fa def kuréel xasida di jàng ci kaw am ñu jàpp ne daal waruñ ko foon daf dañ ko waroon def feneen te jàkka ja ñu def ko ngir julli rek muy laaj ak leerlu ci loolu yëkkati kàddu day ci biir jàkk moom daa bokk ci li ñuy tere dul ilimaan ji toog di jiite ni ñu ba leen di xutba ba muy waar wax ñu di ko dégg waaye koo xam ne ne dangaa toog def sa jaamu wala ñenn man nañoo uh, toog di jaamu yàlla waaye nag bu ñu yëkkati kàddu ci anam goo xam ne keneen ku bëgg a def weneen xeetu jaamu danga ko yàqal loolu moom dañ koy tere ci lépp jàng alxuraan ak jàng xasida ak tudd xeet tudd yàlla ci yam ndax dafa ànd ak lor keneen kon foofu di fa kàddu daa bokk ci ñuy tere yi bëgg lu fay def na ko def ci ndànk ci dal su ko defee keneen ku bëgg a def leneen ma def leneen loolu mooy li ñu santaane su ko defee nag yu mel noonu daa ma a bàyyi xel bàyyi xel nit ñi léeg danañ bëgg lu baax waaye léeg-léeg ñuy lor ñeneen duñ ko yëg léeg ci biti sax bu dul jàkk am na ñuy taal ay rajo mu xumb yenn xumbaay yi xëy na lu baax la jubluwaay ñu ngi lor ñeneen booloo fu ñu dajee di jàng alquran ba ñu jàng xasida lu ñu mën rek mën nañ koo def ci anam goo xam ne ñoom ña fa nekk nañ dégg waaye nag buñ buñ sonal keneen koo xam ne mën naa am maa ngi ci jeneen farata yoo xam ne li ñuy def da ko yàqal loolu bokk na ci yi nga xam ne jullit yi fu ñu mën a nekk rawatina bokki taali bi war nañ ko bàyyi xel wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ginnaaw dañoo waxoon ci lu weesu ne nit bu xamee waxtu ya nga xam ne ci xamti la ko fekk du ko fay muy laaj koo xam ne dañ koo nelawal ngir def ab opération comme docteur ku ñuy faj di ko opéré nelawal ko waaye ñi nga xam léeg-léeg nit dañ koy këf euh, fuunal ko dara wala ñu doroy ko mu toog lu ma vingt-quatre heures ximmiwut muy laaj ba xam ndax ñooñu ñoo ki xam ñoo bokk àtte wala déet euh, li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy wax ne ñooñu àtteeb kuy nelaw lañ leen di àtte ndax dañ leen nelawal bu dee lu mel ne xam nag nit ki tegu ko boppam kenn tegu ko ko suñu borom a jékki-jékki ak ñëw coobareem waaye bu lu mel ne eh, ñi ñuy faj nag day mel ne ñenn nelawal xeetu nelawal la te nelaw moom bàkkaar lay teggi waaye du teggi eh, faratay julli ku nelawoon vingt-quatre bu yewoo day fay julli ya ñëpp ci borom xoox it loolu xeeti ñooñu ñuy faj foofu lañ foofu lañ ko dugal day mel ne dañuy xàjjale ci dara dal waaye sawablu ko ak bu fekkee ne yaa ko sawablu donte it ak am paja tax waaye yaa ko sabablu dañuy jàpp ne su boobaa nag su su ngàmt loolu dañuy da nga war fay kon kooku ñu ñu nelawal moom itam jaay ko doole nelawal ko ngir xëy na ak jubadi wala mën a xew day mel ni amu bàkkaar ci ñàkk julli googu waaye nag saa bu ximmee eh, mu fay julli leeram loolu mooy li gën a lëmb li gën a li gën a bari ci waxi borom xam-xam yi ci wax wallahu taala alam eh, mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam waaye nag ay way juróom ñoom tuubuñ bu demee ba war a am borom kër kan moo koy maye nit bu xasee tuub wilaayaam ci loxo yi ah, jullit ñi lay nekk barab ba mu nekk ka fay kilifa jullit ñi bu demee mën na ko maye wala boroom xam-xam wala ilimaani jàkk ja wala mu dajale ay mag ay kilifa ñoo xam ne mu kàllaf lañ ci lislaam ñu maye ko su boobaa dara nekku ci ndax wilaaya am na lay am léegi mbokk jullit yi ay mbokk jullitum ñooy nekk ñooy nekk wali yoom ñooy nekk wali yoom waaye ay waajuram yi nga xam ne duñu jullit moom ñoom nekkatuñ ay kilifaam ba di ko sañ maye wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jumaa joo xam ne dañ ko étage ndax ku yéeg ci kaw wala bokk étage suñ ko waaye dafa am ay escalier ndax ku yéeg ci kaw jullee fa julleem gën a baax waaw bu fekkee ne yéeg ci kaw bi day jublu ci ab rëy wala ne nit ñi nañ ne ci suuf mën nu feet leen kaw waaye jàkk ji lañu tabaxee noonu moom am kaw ak suuf su boobaa fu mu fi jullee rek incha allahu taala julleem gën a baax allahu taala alam mbokk mi laaj it nee na ndax bu jumaa ji fee ku jullee ci biti daan jumaa waaw jumaa de ajjuma dañ caa sart jullee ko ci jumaa liy tax jullee ci bitti wéeru mooy jumaa ji fees ba amutoo foo toog nga génn ci bitti wala boog nga jokk ci sàppe maanaam jumaa ji feesut waaye sàppe yéena ci biir nga ñëw ba tolloo bunt ba nga jokk ci sàppe soosu ay nit jokk ci loolu génn nga xam ne boo toppee sàppe si dugg na ci biir jàkk ji daa daa génnaati bitti su boobaa itam nga àjjuma waaye su ñaar yooyu amul nag jàkk ji feesut jokk woo ci sàppe yi subaa yëpp ci masa bu Maalik moom amu amuloo àjjuma allahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa am koo xam ne moom na du julli waxtu yu juróom waaye àjjuma moom su jotee dana ko julli mu ngi laaj kooku luñ yi noonu na xam ne ni ko ajjuma ware noonu la ko waxtu juróom ware ni ko ajjuma ware noonu la ko waxtu juróom ware lislaam it nanguwut xaaj dinaa def lii waaye duma def lii tey jàpp naa ne julli waxtu juróom moo gën a jàpp ne ajjuma ginnaaw ajjuma faw ci jumaa ngay dem déglu ba dooru julli ñëwaat waxtu juróom nag jàkkaa ci gën am waaye ci sa kër mën koo jullee kon kooku laaj nag koo xet dimbali ñu den nag moom laa biire ko ngir mu ñi mu fonk ajjuma na xam ne it noonu la war a fonk waxtu ci des ndax ñooy am daraja fa yàlla yépp ay farata yuñ gàll ci Abu Bakar Siddiq wallahu taala mbokk mi nee na moom day ne ci daaraam gaaw ba àll ba bu àll ba nee na bu ñëwee ci kër gi soxnaam day ñëw bëgg ko jox loxo waaye neen damay bañ muy laaj ba xam ndax loolu aay na wala ayut waaw waaw aay na de sa soxna jox la loxo dara nekku ci eh, te ndabul teraanga buñ la ko taajalee jëfandiku ci kon fonk la xëy na ak warumal la moo tax mu ñëw namm la bëgg laa jox loxo bëgg koo yow loolu bokk na ci ànd bu rafet bi ñu santaane wa ashiruhunna bil ma'ruf bu la joxee loxo nga nangu ndax aramu la bu lor nekkut ci jox loxo ni da nga am wéradi wala luy tax loo xam ni te soo bàyyi da nga ko a leeral ngànt li ba tax ko ko waaye du diine moo la tere nga jox ki ñu la tere nga jigéen joo xam ne laal aw yaramam daganul la kooku la ñuy tere nga jox ko loxo waaye sa soxna moom euh, joxante loxo bokk na ci yi nga xam ne ay teggin la ca ndax euh, ak fonkeel ak waruma ak nammeel lay tekki ci liñ xam kon nag su boobaa bu la joxee loxo euh, jox ko loxo bu la joxul loxo yi sax tàllal ko loxo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee jigéen bu dee julli kawaram kawaram di feeñ luy atteem ndax dañoo wax ne jigéen léppam awra la waaw awra day day ñaari xeeti awra awra ju tar ak awra ju woyof am na ci góor am na ci jigéen awra ju tar saa bu feeñee julli ba yàqu na ci góor ak jigéen bu fekkee ne mën na koo muur te muuru ko julli day yàqu awra woyof nag julli ga baax na waaye bëgg nañ kooka baamuwaat julli ga waxtu wa jeexul bu dee jigéen bi mu wax nag jigéen moom awraam ju nga xam ne da ko war a nëbbu mooy yaram yëpp ba mu des atraaf yi mooy tàmbulee ci bëti wu jëm suuf ak loxo yi ak dënn bi jëm kaw ba ci bopp loolu awra la waaye awra mu xafafa la yu ñu woyofa araba ju woyofa la yoo xam ne bu doon julli lenn ci yooyu feeñ ay mbaggam wala kawaram feeñ julli ga baax na waaye manqué na sopp nañ mu julliwaat ko bu waxtoo jeexu góor nag dañuy wax ne as saw ataan mooy kanam gi ak suuf gi ñooy awra ju lu tàmbulee ci jub ba ci bëti wóom li ci des nag loolu awra ju ndaw la awra ju woyof la yoo xam ne bu doon julli am lu tàmbulee ci jub wax bi ba ci bëti wóom yi lu ci dul ñaari saw ay euh, bu feeñee julli ga baax na waaye sopp nañ bu baabu waxtu jeexul waaye nag ñaari awra yi suufu gee kanam bu feeñee bu julli ga yàqu kon jigéen ju ñu wax boppam di feeñ bopp kawar bopp ci awra ju woyof ji la bokk bu feeñee ak ni ki noonu ay tànkam ci la bokk bu feeñee julli ga baax na naam waaye nag manqué na te tax na sopp nañ ñu baax mu baax mu baamuwaat ko bu fekkee ni waxtu wa jeexut allahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne sobe sobe da ko taq mu fóot ko ba sonn waaye dafa may tâche maa daal jeexit ji des na ci ba tey muy laaj loolu di atte euh, dañuy wax ne kulóoru sobe ak xetuk sobe bu jafee dindi jéggal nañ ko caf ko ak sobee lañ di jéggale fii mi ngi saf sobee mu dañ ko war di ko fóot waaye bu nee ba safatu sobee dem na waaye couleur bi des ci mu ne mu wax taas ay taas des ci wala sax xet gi am doole ba fóot nga ba sonn waaye teew muy xeeñ su boobaa jéggal nañ la ko kon couleuru sobee ak euh, euh, xetam couleur gi ak ak ak xet gi bu jafee dindi jéggale nañ ko couleur bi mooy tache yooyu jeexee ni bàyyi xet gi mais mën naa doon solo su for ba boo ko fóonee mu téewut amu des luy xëy li ñu dul dégg mooy jaf ka sobe feeg mi ngi saf sobe moom sobe sa feeg mi ngi saf ci ci ci ci yére wala yaram bi duñ ko jéggale dañ ko war a dindi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit a ngi nii koo xam dafa am ñaari soxna waaye bi muy tukki jël kenn kii yóbbaale am faa moom ab diir ñibbisi nee na soxna si bàyyi woon ne ko nag danga may fay diirub bu toll ne li nga fàddu woon ak kenn ki may tam ma jël sama wàll la laaj ba xam loolu war a def wala daa war a tàmbali séddale kay waaye ci mazhabu imam Malik tey ay gu fàddu su ko fay xam ne góor gi tooñee soxnaam ba ko bu faati de su ko fay ndax dañuy wax ne du mën a fay ndax wéttali yee ci aju yëpp daal boo xasee faat faat na te waxtu wi nga koy fay day mel ne yaa ngi tooñ keneen ku waroon a jot àqam moo tax ñoom dañuy wax ne loolu bu xasee faat di su ko fay kon tooñ na am na bàkkaar ci loola waaye nag du ñuy fay waaye nag li mu def it waru koon def moo di ne ku am ñaari soxna amul sañ-sañu bu tukki jékki-jékki rek na kenn foofu neex mu yóbbu loolu su fekkee ne gis na ne mënta ñàkk a yóbbu kenn na waxtaan ak ñoom bu juboo ci kenn ki may kenn ki mu dem loolu mbirama wala mu tegoy bant ku bant ba dal mu dem te su boobaa it nañu xam ne bu demee ak kii bu ëllëgee day dem ak kii loolu moo jaadu bu fekkee ne benn yoon la nag xëy na te kenn la mën a àndal nag su baaw mu teewal bant wante ba kum dal ñu xam ne kon kooka la yàlla dogal mu xam ne tuuti kenn waaye tànn ku ko neex moom. yóbbu ko nekk moom ba ba ba mu neex ko mu ànd moom bisiwaat loolu rek ak tooñ la loolu rek ak tooñ la ko xam ne ak julli war na ko moytu ndax li yéen islam boo xam ne ku am ñaari soxna te maanu woo seen diggante bi yomal xaamee booy dekki mm, wet gu dëng wet gu jàng mel ni ko paralysé noonu lay dekkee loolu yàlla ci yàlla musal moo tax moytu la wallahu taala alam euh, mbokk mi lay laaj nee na Orange Money li muy def nga xam ne boo ci dencee xaalis nee na lu mel ne nga dugal ci cinquante mille boo koy jël faaw moom am lu mu muy laaj ba xam ndax loolu du jëflante ci riba waaw orange mooy dafa mel ne day denc da dencal dafa mel ne yow da nga xaalis euh, ci mazhab mal li ñuy wax ne nag euh, ab ndénkaan sañu suñ cay jël ak payoor waaye dafa mel ne ki nga dénk ab garde ab garde ñee la bu lay gardeel sa xaalis su soxlaa mu jox la ko kon sañ na cee jël ak ak payoor dafa mel na ñoom benn payoor gi mu aju ci jëmmi denc gi ñu la koy dencal ci lañ la fayu wala barab bi ñu la koy dencal dafa mel dafa am ab compte buñ la jox boo xam ne ñoo yow rek yaa ca mën a denc su waa loolu sañ nañ la ko fayu denc gi ñu la ko dencal ba mu ñoŋ soo ko soxlaa jël ko loolu mën nañ sañ nañ cee fayu nga doon daal ab charte mbaa muy lu mu xam waaye bu fekkee nag laa wax ne mu dencal la te charte lu la mel ne dañ ñi nag bokk na ci charte yi te xam nañ ne saaboo ci dencee dañ lay wax ne la saa boo koy jël danañ jël danañ ci jël nangam soo yónnee ni ki nga xam dañ lay dañ lay fayu ndax dañ la dawal dañ la defal ab service fayu la ci loolu kon lu dagan la du ne dañ laa lebal dara di ci lekkaat dara waaye dañ laa dencal sa xaalis ne la nag denc gi ñu la ko dencal da nga ci fay nàngam june nangam ko ci fay li ci am solo mooy na doon lu ñu xam na doon lu ñu xam suñ ciy juboo loolu mu dagan wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ginnaaw léegi xam-xam àgg na ci docteur yi mën nañoo xam nit ki buñ ko defalee gëstu rek xam ba xam amu na wala amul mu ne ndax idda ji nga xam ni nit ki daan def suñ ko wàccee muy toog ñetti laab wala yu ni demee doora a sañu si war feneen ndax léegi waruñ ko mën a bàyyi buñ fasee nit ki rek mu dem hôpital bu ko defee docteur yu seet ko bu amut ñu mën ko maye ci saa si bëgg say war waaw loolu day mënta nekk ndax idda du rek ngir xool ba xam jigéen ji ëmb na wala ëmbul loolu ci la naam waaye du loolu dong dafa mel ni li ëpp solo ci idda ak jaamu yàlla jaamu gu yàlla sant jaam la ndax am na ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne ëmbut teewul dañ leen ay dawloo ku takk soxna mësu leen a gisee boo faatu day daw ku yor sa soxna soxna dem ngeen ba mu leer na leen soxna si dootul am doom soo ko waccee dana daw boo faatu da lay taw te ñooñu ñépp xam nañ ne amutul kon du mbirum ëmb rek da bokk nag waaye du loolu dong du moo tax de moom lislaam ko santaane ngir jaamu yàlla ak yeneen xëy na nag xamaale ba xam ëmb na wala amul ci la kon bu docteur yi mënee xam ba xam ëmb na wala amut it am na yeneen mbir yoo xam ne nii seetu docteur googu mënta mënta wuutu yooyu benn xëy na nag am na xeeti mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi ay ijtihaad ak gëstu moo leen ci yóbbu woon yu mel noonu xëy na manis na ca dimbali koo xam-xam léegi euh, bokk na ci yu mel ne nit ki bu buñ ko waroon a rey ndax dafa njaaloo wala dafa rey nit ñu war koo rey wala ñu war ko caw yar yoon bu ëmbee dañoo war a bàyyi bu mu lu mel noonu nag tey man nañoo war a dem seeti hôpital bu ñu xamee ne amul rek ñu daal dawal àtte bi fu mel noonu ndax loolu du idda loolu moom wóoru rek te bu ñu am lu wóor ci ne amul su boobaa nag mën nañ koo mën nañu dawal ci kaw àtt bi ci yu mel noonu xëy na manis na ko caa jëfandikoo jigéen joo xam ne dañuy xool ba xam am na bu ëmbee ñu ne nañ bàyyi ba mu am doom ñu door a def àtt bi naka noonu léeg-léeg it kuñ fase muy sikk sàkka euh, ma muy sikk sàkk ëmb muy sikk sàkk ëmb na wala ëmbul ginnaaw idda ji ci laa idde nag kooku idda ji jeexee moom euh, ba nag muy sikki sàkk mën nañu dem ci yoon hôpital léegi ndax loolu boroom xam-xam ci yokk ngir wóorlu waaye bu idda jeex nga xam ne moom li yoon santaane moom def na ko ginnaaw mi nag sikki sàkk dugg ko ñu waxoon ne na toog ba sikk si jeex ku mel noonu it na buñ demee hôpital euh, ñu wóorlu xam la ne ëmbul su boobaa la nga xam ne sikki sàkk gee waraloon ñu di ko ko tabloo day mel ni sikki suuf sa nekkoon ci yu mel noonu mën saa jëfandikoo xam-xamu médecine bu bees bi ci yooyu waaye am naa jëmmi idda moom dee su ko yëkkati ngir loolu ndax loolu dong taxu ko jóg wallahu taala alam